démb nag euh, sama combat bi démb dama kaa préparé jóge naa sama koñ sama waa koñ ci ne ma sama waa koñ euh, sagal na ma waa passé ñëpp ñëw nañ def naa li may def fas ba ba dem démb damaa demee pour indi ndam euh, def naa démb dix-sept saafara ak quinze euh, biti saafa yu ndaw boobu ma jógee sama kër la sangoon naa dix ma dem foofu seddaay bi jàpp ma ma karamp ma def samay assurer def samay def affaire ñëw fas yéene jël ndam tëgg yàlla yàlla dogal ne ma gis fa ñoo xam ne ne ko sama xel ñoo ko sama ginnaaw ku si ma ne Awa Baldé ma gis Awa Baldé ànd ak Pawlish Mbaye Awa Baldé si àdduna man la ànd fu mu demaloo ànd tey xam na ma xam-xam boo xam ne moom mooy loolu ma xam ne carrément ñoom dañ maa xeex gisuma ne bisu tam ñëw li ma conseil li mu conseil Pawlish Mbaye bokkul conseil Pawlish Mbaye ne ko Ouzin Keita bu ko may fu naat bu génnee saako topp ko topp ko ne ma carrément bu toppal mais boo ko mbéjee génnan def affaire yoo xam ne daf affaire affaire yëf mu daf affaire yoo xam ne daal maanaam euh, daf affaire seetaan yoo xam ne maanaam daal daf affaire fumier yoo xam ne euh, dafa def loo xam ne maanaam daal lu euh, commune daal commune ma wax wala li ma Pambay ko commune ma songu Pambay daal di daal daal di mbéj ko génn Pambay naaw xam nga ma def opération fu sama opération bi nekk fu la tëb mbëkk pour de ma songu moo tax ma màtt leex bi. moo tax ma màtt pooj bi de bu de man yéenewoon naa ko dim loo xam ne ma dajoon dambar bi sa wala kooy bi dama koy dama koy dama koy ŋaañ naa ko def soxal de bu na som na isalla man Ouzin Keita gis naa euh, kilifa yoo xam ne ma woon jox xaalis ne may jàppale kenn jàpp ma ku ci man Omar Sow kese moom moo ma jàppale Abassir Ka ku ci man di Diagne lu ñu wax defuñu ko ak ñoo xam ne xaw ma leen damay jóge sama dama jóge gis sama compte ay xaalis xaalis xaalis ñii di ma yónnee de bu na som man Ouzin Keita fa mbay duma ko mës a ndax démb damaa fi ma métti dama sa sama sutura laa am man li nga xam ne moo tax Sénégal bëgg ma muy sama wàllu opération la fam bu bëggoon daaji kii ko bàyyi kii dinaa ko fekk kii dinaa ko sott nday ma benn kilifa ñaan par mbay dinaa ko def loo xam ne dina dégg à mort